lan moo waral Sénégal ñenn ñi duñ defaraat seen jikko jeunes yi taxuñ may wax parce que jeunes yi li am solo li ma jàppoon ne moom la justice war a def bu ñu leen jàppee tëj Sénégal dañ bàyyi tëj koo tëj fii da nga ko yoral dund di ko jox muy lekk ka naan ak fu muy tëdd da ngay dem ci àll bu xonq ba dafa leen fa pàkk bu yaatu encadré ko nag sécuriser ko dafa leen lam bracelet électronique bay loo leen ceeb konoon dund gi sax léegi yomb bay loo leen ba ñu bëgg a dee ba ñu sonn nga jox leen nag seen àq ak seen yelleef ngeen jox leen seen i commission ndax ku ci génn wax dëgg yàlla bu dee da doon dagg fiilu courant bi pour teer teer bi fiir ba nga war koo jaay wax dëgg yàlla boo génnee kaso sa pen jeex nga génneele un million wala cinq cent mille wala deux million bu dee ku san day liggéey nga wala ko am jom doo defaat jëfin gi nu waaye nag y a de laisser aller indiscipline bu doy xale yi dañuy agressé ku ne jamante autoroute VDN baa ngi nii kenn ñi mutu faa jaar guddi xale yi lu neex def te buñ leen tëjee suba ñu neexaat ci mbedd mi loolu moo dul dëgg du yoon réew nag dafa war a am yoon justice ñiy jàdd ñu corriger leen bu ñu nee maison d'arrêt et de correction pour loolu la mais xale yi lu neex waay def lan mooy nday ab train di dem te TER yëpp ay doomu aadama amaana am na ñoo xam ne seen nday ak seen bàyyi ñu ngi ci woon seen i wayjur seen i yaay ñuy def cëfin yu ñaaw yooyu moo tax forêt bu mbaaw war nañ cee président foofu ministre de l'intérieur sax laay wax la war na faa def liggéey ñu ci bëri ci Samba booy ñaata nit la ñu rey suul leen foofu ci foore yi foore bu mbaaw boobu war nañ faa def desante wàcce fa armée bi segg ko ba mu set di fa teg ay nit ñu koy saytu ba pare guddi gi ñuy def ay ronde nit ñi mën a dox vaquer à leurs occupations lan moo tax kenn mënul dox ak sa téléphone kenn mënul dox yor sa saak kenn mënul takk sa takkaay kenn amul droit dawal sa oto y a trop de d'incivisme d'insécurité dans ce pays beneen bi mooy askan bi aussi ñenn ñi ils sont ils sont ils sont responsables da ngay dëkk ak bànni mu leen kii bànni la wuy la nga naan dama ko deneen sa ndax sama yaayam nangam du dëgg du yoon koo dendal moo xam yaayam lii la la nangam la dénoncé ko mais lan mooy rôle délégué de quartier yi pour man bind ay certificat de domicile rek lañ fa nekkee képp ku ne ci koñ bees wala muy def yenn yi war nañ koo dénoncé tàmbale ko ci délégué de quartier bi àgg ba ci commissariat bi àgg ba ci ba fa àgg mais ab train yëpp ay doomu aadama ban jéy la noonu ngi dem dagg ay feer beneen bi aussi mooy état naka nga mën a liggéey jumtuwaay yu mel noonu doo ko accompagner ak vidéo yaakaar naa sax def nañ ko mais nañu fexe ba traquer ñi ko def tey bu ñu te yu mel nii nañu ciy def jumtuwaay yu koy saytu Sénégal trop de désordre tali bi sax homme de tenue yi mënoon nañ faa ñàkk caméra de surveillance kay boo ko defee te caméra de surveillance xanaa nag oto bu burle yeneen réew yi da yëg-yëg ñu fëgg la indi la sa facture Sénégal ngay gis policier war a dem liggéey leneen taxaw ci tali bi ñetti ci suba gi kii jar parce que parce que Sénégal dafa amul sanction dañoo war a développer de façon culturelle de façon organisationnelle xam fan lañ ban modèle de société la ñu bëgg mais bu dee y a un état qui recule moo tax Machiavel l'avait dit il faut avoir le bâton et la carotte parfois da ngay neexal waaye parfois da ngay caw waaye reculer trop de laisser aller dans ce pays il faut qu'il y ait pour que nous ayons une société de modèle dans ce pays société boobu nag lu jafe la ci beneen mbir sama mbokk internet yi ndax porte à porte yi moom laay tëjee yéen ngeen coow li jamono ji jëfin gu salte gu bon mii réew fan lañ jëm mii réew fan lañ jëm réew moo xamante ni ay gannaaw kër léegi lañuy lekk di ko askanele sunu réew réew moo xamante ni xamewuñ fi lu baax ñu baax tëdd ci réew mi ay kilifa yu tàdd yu jàmbar ñoo xam dañoo jeexaadu nafsi dañoo jaayante seen bakkan jeexaat ngir l'islam rayonné dans ce pays ngir société bu baax ñu dem nag importer société étrangère indi ko fii nag dem ba matérialisme bu luxe bi sonal nit ñi ku ci yorut iPhone bu mag ku ci yorut oto bu cher ku ci amul kër foog nga ni dundoo ci réew mi ci àdduna bi sunu mag ñi dañ daan yor sàkket laa la wax de sàkket wërale ko yor ñeenti soxna ci kër ak i njaboot ay goro tool bi nekk nii ci ginnaaw moo tax modèle de socio économique bi ñu amoon neex sàq mi nekk nii daara ji nekk nii jumaa ji nekk nii armée yi nekk nii loolu mooy société xale yi dañuy dem liggéey ci tool yi ñaq jariñu ñu denc leen li économiser ci sàq mi bu nawet bi jeexee ñu yóbbu leen ci daara ji ñu jàng yi booy jàngee waxtu julli jotee nga julli ku ci suñu borom moom ñu yóbbu ci armée ya